ay ca mooy noonu ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen way di leen kontaane di nuyu téléspectateur yoon ndam tv di leen jaajeful bu baaxa baax tay nak ñu ngi Kër musar seet si doomu Kër muy ñaga Star di jeune reporter di def lu am solo ci lamb ñu fas waxtana mom ci li nga xamante moy combat Gris bordo ak balaga yi mbokk téléspectateur yoon ndam tv dama koy bàyyi mu nuyu ngeen bu ko defee ñu wël waxtaan bi ñaga Star ñu ngi lay ziar waaw Khalil euh, delu ziar am bekté kontaante di nuyu téléspectateur ndam tv yëpp di nuyu sa mui taala muy ku bax ku ñak ki ñaan di nuyu waa Kër Massar yeb di nuyu fi nga xamantene fi ma fek muy wa cité castor sotorak ndax fi moy suma pari di nuyu suma serigne seigne Abdou Karim Mbacke borom al axla di nuyu suma serigne seigne Abdoulaye Diop borom ñetti khalil aja mooy non, am solo mais Ndiaga Star nga de balagay ak giri Bordeaux kan nga faral waaw <laughs> ki ma faral ngay faral rek parce que waaw nee naa la ñun moom mm-hmm. weesu nañ fu ñuy faralee mbër ndax tey boo nee journaliste rek euh, xam nga côté bu nekk ngay nekk di fa laal te mbër yëpp suñu xarit lañ waaye loo ci ti dégg combat la boo xamante ni nii tey amateur yi ñu ngi koy bàyyi xel mm-hmm. ndax ñoom ñaar dañoo bëre woon mm-hmm. ñu jox ndam Balla gay. décision arbitre Gris Bordeaux ne ko musoo bëree combat bu yàggee nii ay minute nga daan may say adversaire dama laa bëreloo ba nga génne sa lamine te munoo maa Balla Gris Bordeaux Balla Gaye ne ko nag combat bi faaw ñu taxawalaat ko mu leer mm-hmm. dafa mel ni ñaari mbër yi dañoo ñemente de waaw ñoom ñaar ñemente nañ ndax ñaari góor buñ dalantee rek yaakaar naa ragal waru fa mun a am te ñoom ñaar keroog dañoo cons combat bi ba mu jeex kon ku ci ragal rek da ngaa yab say say say adversaire say say say supporter dañoo gis Gris Bordeaux à chaque fois bu defee sortie day dal ci kaw Balla Gaye 2 waaw mais c'est normal parce que loolu mooy jaay làmb ji ni Balla defee sorti noonu la Gris Bordeaux defee sorti pour pour ñu xam ne ñoom ñaar ñëwuñu pour combine dañoo ñëw pour bëre waaye loo ci mënti dégg làmb ci ku ci bàyyi li nga war a def sa moroom daan mais cette fois si mën nañ xaar li ñu bëroon combat bee passé ñu bëre bii nii lu ko raw waaw bii mën nañ xaar lu ko raw mais yaakaaruma ne xeex bagaar biñ privilégié woon ñoom ñaar dëggal ci seen bopp combat bi yaakaaruma ci loolu te combat bi ku ci dëggal sa bopp ci xeex sa morom war la jaar ci falan yi bëreeg yow daan la xam lu tax falan bi du mën a ñàkk parce que Balla Gaye pied gauche lay teg Gris Bordeaux teg pied droite kan fausse gàdd la ak gàdd normale ñaari loolu saa boo gisee fausse garde ak garde normale latéral la ñuy bëree soo gisee nag ñaari garde taxaw. ci mm-hmm. axe la ñuy bëree. Mm-hmm. loolu man maa la ko wax fii tey. kon combat mun nañ ne combat stratégie la. combat stratégie la combat calcul la. Mm-hmm. ndax Gris nee naa la. am na benn mobilité bu nekkoon ci moom. xëy na wàññeeku na parce que booy màgg sa poids di yokk. ndax boo xoolee bi muy bëreeg Lac de Guiers lu yàgg laa lay wax. dafay def demi flexion. xar ko. def deux temps. jargandoog moom daan ko. te loolu xëy na giri bëreetu ko léegi mhm. léegi ni muy bëree mooy dalay jam benn benn daw jàpp la imposer la doole mhm. ak bëree daan la parce que bul fàtte ni troisième tigre de Fass du n'importe kii moo koy nekk mais tey ji boo ñu doon wax ci qualité Gris Bordeaux mëninam ak ak point faible am loo ñuy wax ci Gris Bordeaux waaw Gris dafa dafa xaw a aay ci mbër bu mën a bëre mhm. soo tëlee xeex. point fort Gris Bordeaux waaw Gris Bordeaux boo tëlee xeex. daf lay massacrer. ndax giri am na croisé gauche am na croisé droite. te saa boo dawee di ko jël. da ngay gis day miime te bu miimee wàcc rek boo siggee mun nga daje kuwam boo xoolee daal raaga bàyyi ma joon gis nga ni mu demee moog gis nga ni mu demee moom moo gën a ñor xeex par rapport ak Balla parce que Balla mi ngi jàng xeex mais bëre bi moo ëpp ci moom giri bokk na ci yi dàqee ci làmb non bokk na ci mbër yi dàq xeex ci làmb parce que tey nga dóor mbër mu daanu loolu nekkul lu yomb mm-hmm. waaye tamit mënoo ko génne ci mbër yi dàq bëri waaw parce que Gris dafay xeex. Mm-hmm. dafay bëree. Mm-hmm. moo waral sooy euh, bëreeg moom. Mm-hmm. ñaar yëpp da nga koy sóoraale. waaw ñaar yëpp da nga koy sóoraale. parce que boo xoolee keroog ba muy bëreeg Mouhamed Ndaw Tyson. gis nga ndam bëreeg moom da ko sànni ay rafaal. daw dal ci koom. combat bi jeex. imposé imposé ko. te loolu moom tout le temps booy xool buy bëre. loolu dafay faral di indi loolu ba keroog làmb lu jël di am. mais point faible Gris Bordeaux. waaw Gris Bordeaux point faible la man li ma seetaan ci ay làmbam mooy. dafa xaw a am. problème ci côté mbeur bo xamanteni tollawut ak mom poids bo xolé dal nako ci ci ci ci giri bordeaux mm-hmm. ci modlo mm-hmm. dal nako ci euma sen wa bu jappante ak yow mom mm-hmm. dafa manam pour mu kat appi dafa yomb wa giri bu wacce boo jàppee boo wàccee di jafandu si yow boo rocceekoo rek mhm. pour mu def kat app bi dafa yomb ba tax na tey su ma indi woon Balla Gaye mhm. dama daan ko bëree lag moom bëre bu sew sànnil gauche droite dugg génn mhm. di esquiser ay kuwam da ngay sànni gauche sànni droite dugg génn mais xeex bi bu ko jeexalee làmb ci waa indil ko ko ba mu gëm ko mm-hmm. nga nga bëri moom daan ko mm-hmm. parce que bëri ngiri bëri digg ak bëri kaw la gën a mën waaw parce que bi muy nekk xale mm-hmm. mënoon na bëri suuf mais jamono yi mënatul bëri suuf bëri suuf maanaam bu at bi ne par mu daw coppati sa tànk dëj la ngiri Bordeaux du bëri noonu waaw mais <laughs> tamit moom day miser toro ci xeex bi kat giri giri waaw parce que dafa jàng boxe te boo xoolee dafa am benn soxor gu nekk ci moom ci wàllu làmb ci mm-hmm. côté adversaire am mooy boo ñëwee coow euh, topp leen ci combat bi mm-hmm. boo xoolee moo modlo Lo loolu moo ko dal dafa topp rafaali gauche droite mm-hmm. gis nga bu bu Modou sëggee muy jéem a dóor Modou day xëcc fàqat ko mu ñëw parce que boo xoolee dafa am nga ñam naa ko neex naa ko bàyyi nag amul fenn te foo foree doom da ngay bëgg di fa delloo sa loxo dafa dóor ay mbër ñu kaaw moo tax mu jàpp ne war na koo mën a def ñëpp dëgg la leneen ñu gis muy jekku mbër ci digg géew bi war ko waroo mën a bëre moom daan ko mais dañuy gis à chaque fois dañuy gis xeex bi lay gën a favoriser. Mhm. Gris waaw mooy li ma la wax rek parce que des fois dafay bëree loo xamante ni dafa bëgg su paree am lu mu nettali. mooy dama laa duma. daan daan la. Mhm. waaw mooy waral léeg-léeg même bu la mënee ci biir bëre bi wala mu jekku ci biir bëre bi mm-hmm. daf lay bëgg a dóor ba pare doog a mën a bëreeg yow daan la mm-hmm. mais loolu nag mun nga ko def ay mbër ñu war la parce que am na mbër mën nga a dóor ba yaakaar fekk jeexaluñ mm-hmm. ñu gis combat bi passé diggante Balla gay ak ki nga xamante mooy Gris Bordeaux euh, xeex bi ñu gisoon ci ki nga xamante mooy Gris Bordeaux appliqué wu ko diggante mag Balla Gaye combat bi passé waaw parce que xam nga booy xeex. nga dajeeg koo xamante dafay xeex te yaakaaroo ko ci moom da ngay da ngay da ngay xam nga boo dajeeg góor sax yow yaakaar na nga jàpp ne yaa ko mën nga sànni ko gauche mu sànni la droite. boo ko dóoree mu remise la. da ngay téye sa bopp. loolu moo ko dal ci combat boobu. boo mm-hmm. tax te la tamit xam na ni làmb ji il faut xeex moo ko ciy génne. waaw moo tax mu daf dañoo xeex. Mm-hmm. mu bëre. waaw loolu moo tax. ñu ñëw ci ki nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 tey boo ñu doon wax point fort Balla Gaye lan la waaw Balla Gaye bëri na ay qualité ci làmb ndax ba Gris Bordeaux di daan Lac de Guiers mm. Lac de nekk waala nekk géejawaay Lac de Guiers numéro un mm. Balla mi ngi nekk xale bu ndaw ndax Gris Bordeaux mi ngi ñëw ci làmb 1997 mm. boobu Balla Gaye ñëwagul Balla Gaye ñëw ci làmb 2000 2005 2006 kon Gris moo ko rawee presque ay 10 ans ci làmb la liggey ba ñew fekk leen ci kaw di bëri ak ñom kon la bëri na lo xamanteni war nako xam ci giri Bordeaux mm. la yor na qualité bo xamanteni tay bal la day def rotation ci bëri mm. dafa naqaree calculer mm. la mun na la daw jël xolal moog Ousmane Diop day def rotation ba kérok mu lay daan ba muy ak modlo 2010 dafa sanni corosé rek mep daw daj ak mom. rotation la def ba daan ko parce que loolu pour nga def ko faaw nga mobile. te Balla Gaye dafay mboot. li muy mboot nag bariwul. mais rotation yi mu doon def. est-ce que moo ngi moo ngi moom ba tey. non loolu boo xoolee seen premier combat bi. Hmm. Balla jéem na ko. Hmm. mais bu ko defee benn ñaar du ko ñetteel. Hmm. parce que poids bi tamit moo ko mayatu. yaa ngi dégg mhm. poids bi moom moo ko mayatul moo tax bu nee benn ñaar rek day taxaw mhm. waaw te loolu tamit xëy na mun nañ ko ko nangul parce que booy màgg tamit munoo di ni nga meloon 2010 munoo ko mel 2022 waaw loolu tamit c'est normal mhm. gis nga ba muy bërik Tyson mbootu coroon la ko dóor Tyson dóor bopp bi yaa ngi dégg léeg-léeg day mboot mu réussir léeg-léeg mu rëcc ndax contre mook Eumeu Sène dafa mboot mboot bu rëcc Eumeu seen daw wër ko ndomba daal di koy daan mais mboot bi moom nekkul loo xam ne bëreem lay siy bëre moom bëre benn dem ñaar ñetti ñëw lay indi mais ba keroog ba muy bëreeg Modou sax seen combat mbaam mujj bi mm-hmm. indi na bagaar parce que Balla Gaye saa yu arbitre sifflé day mépp bu mebee mm. day avancer sa kaw parce que pied gauche lay teg léegi booy bëree kuy teg pied gos nag mm. nga xam ni muy bëree mm. da koy tegal pied droite boo bëggee tëj bëreem waaw da nga koy fermer moo ko mais boo ko tegalee boo xoolee Gris Bordeaux loolu la ko tegal moo tax la bëre bi dina bëre de mais pour mu pour mu am finition ci ci bëre bi dafay xaw a mais gëdd yooyu muy gëdd mbëri est-ce que nu na koo def Gris Bordeaux doo Balla dina ko ko def. ci combat bi. Mm. mais bu ko gëddee giri fi mu taxaw du fa jóg. Mm. maa la wax lii seetaan ko. gëdd teg xel lay nekk. waa gëdd la boo xam ne dafa dafa dafay dafa nekk ci seen famille même Sa Thiès. Mm. suy bëree day gëdd. Balla Gaye suy bëree daf lay gëdd. mais gëdd boobu mu lay gëdd. boo taxawee. mu am lu mu seetlu ci yow ne am na yaakaar bu ñëwee dal sa kaw da koy continuer. te boo ko fa xaare bu la sànnee gos juraaj. nu ko neex mën na la ko def. mais Balla Gaye lan la war a mën a moytu ci bu Gris Bordeaux waaw war na mën a moytu ku Gris Bordeaux hmm. parce que am na ku yoo xam ne bu dalee sa kaw day yàq sa làmb na moytu tamit Gris jàpp te jàppul hmm. ndax Gris Bordeaux néewul doole hmm. su jàppee mën na laa takk te bu la takkee mën na la ci mbiiñ nga daan ba pare bala bu bëggee daan Gris buy def action na wóor parce que bu dawee songu Gris Bordeaux poids lourd la Gris mën na koo suruxal waaw ndax si biir combat bi tey bii mhm. Gris mun na ko ci jaxaseeg àdduna tey su ma yoroon Balla Gaye xam nga laa koy wax mhm. combat bi sax bul ci bañ Marcinine. xam nga lu tax. Mhm. parce que Gris Bordeaux. moom moo la njëkk ci làmp boo xoolee Balla Gaye su paree ci combat bi am na yeneen combat yu muy jël. te tey ñoom ñaar fi mu nekk nii. bu daanee Gris Bordeaux Gris Bordeaux dafay dem il faut mu may sens booy si bu dee yoonu làmb. moo tax Balla kombaa bi dafa war a téye boppam. deux minutes. xool lan la Gris Bordeaux indi su ko indiwul moom mu door a indi lu lu lu li mu entraîné mais su ko bëggee jeexel ci une minute deux minutes Gris Bordeaux da koy daan. mais nga mu yàgg. waaw combat bi du gaaw. Mm-hmm. waaw bi. mun mm-hmm. na bañ a yàgg comme bële de. Mm-hmm. waaye tamit du gaaw comme minutes yi Balla Gaye doon joxe naan deux minutes ak trois minutes. mais Balla nee combat bi day gaaw. non yaakaaruma ko loolu xëy na bataille stratégique la rek ak bataille psychologique affaire de mbër. mais moom nee na moo dàq bëre Gris Bordeaux moo ko dàq xeex loolu dañ ci waaw loolu am na droit wax ko hmm. parce que nit si da ngay kañ mënul ñàkk ngay kañ sa bopp ci wàllu bëre boo doon xool ñoom ñaar seeni combat hmm. mun nga nangul Balla Gaye moo dàq bëre giri Bordeaux hmm. soo doon xool ci wàllu xeex mën nga nangul Gris Bordeaux moo dàq xeex Balla Gaye ndax ñoom ci loolu rek lañ ko mën a analyser ndax duñ dem seetaani seeni contact ak affaire yu mais Balla nam daan bëree mm. ak léegi bëreetu ko mm. te boole woon seen combat mu njëkk bi xam nga mooy lan Gris dafa jóge ci défaite mm. Balla jógee ci défaite ñu boole leen Gris Bordeaux bi ko Balla Gaye daanee ba léegi bëree waatagut ak kenn kon ci défaite la jóge mm-hmm. Balla Gaye jógee ci défaite mm-hmm. kon ñoom ñaar ñëpp combat bi daan képp moo leen war kon combat bi daal risque la ci ñaari mbër yëpp risque la ci ñaari mbër yëpp parce que ku ci daanu mm-hmm. ku ci daanu loolu lay day jeex. ndax de nga giri muniko da nga faju ba wer dëgg la balaa arbitre di siffler. ndax daan ngay wër ci média yi naan sama ndigg ak sama bop day metti te Balla gay tamit tollu na fo xamanteni ni nii waratuñ ko daan ci lamb muy réclamer ay ay ay ay malade yo xamanteni ni nii comprendre. non du yoon parce que expérience am warna dépasser lolu quoi. amna la solo mais tay ji ndey ñaari mbeuri tay ji ni nii ku ci daan fo jëm. wa Balla gay comme mi ngi ci ay contrat mun naa ne su jógee si combat bi mm. logique mm. day dem jëli mm. booy Niang bu fa jógee jëli Eumeu Sène mais Gris doo tey su daanee Balla mun na bëre ak Ama Balde mun na bëre ak Modou Lo ba tey sax war na mën a bëre ak Tapha Tine mais ñooy dégg jaw ne Balla bu daanoo ci combat bi kon mun naa delloo ñaar avance yi mais bu daanoo ci ñaari combat yi. Mm-hmm. avance tamit du noonu lañ koy delloo de. Mm-hmm. contra mm-hmm. moo la tënk ñu jox la jox sa nawle. muy préparé ngay préparé. parce que boo xoolee combat bi moog booy ñaala woon. am nu mu demee mu ñëw jël Gris Bordeaux. kon force bu jugee combat bi ak lu mën a xew. ak ngor. dafa war a dem jëli booy ñaa parce que moo teree bële booy ñaa. ku daanu ñaar ci ñaari mbëri sa ëllëgu làmb la la. waaw Balla Gaye xam ma même bu daanoo fii day bëreeg booy ñaar ci yoon. mais Gris su daanee fii. bu daanoo. dafa war a bëreeg. Euh, Reug Reug mhm. dafa war a bëreeg Sa Thiès parce que moom mhm. ci carrièream mhm. mayut ben mayagu fi ben boy sens te ay magam suñ ko defoon noonu du yegg fi fii waaw daf leen a war a may sens moom giri bordo waaw diggante Reug Reug ak ak ak ak Sa Thiès ku ci daan giri bordo bu daanee daa bu daanoo daa war a yow waaw giri mayel boy sens aja amna solo Ndiaga sar loy télé looy téléspectateur TV waaw yoonu ndam TV daal di wax ni gars yi buñ di fàtte bés tous cloche notification bi ndax lépp lu jëm ci wàllu information rawatina wàllu làmb mhm. lépp fii lay leeree waaw yow tamit ngay jeune reporter bu engagé mhm. di def sa liggéey te boole woo ci dara ak kay wax kenn xamalu ci détail ak ci ñàkk fayda nee naa la taala la boo xamante li ñuy def nii moo ñu ko dàq waaw ancien gouloir la nag quoi taala <laughs> ah. waaw di nuyu tamit euh, suma grande sœur bi nga xamante ni mhm. ci salawam laa defee fii émission bi ak suma xarit sama doom day Ibou Thiam Thiam Teranga tamit maa ngi koy nuyu baax di ko ziar nuyu tamit grand laay seen ma mm-hmm. nga ci Amérique maa ngi koy nuyu diko jaajeufal quoi mm-hmm. ak suma mak suma xarit DJ Yves borom émission guddigi gi mm-hmm. maag moom nga xamni ño jogé won Sénégal dem ba Gambie maa ngi koy nuyu ak am wa amna ci walu production ak so ko bay mbay <laughs> wa wa mbay mbay gis nga ndaysan dañ ko daan mom quoi mais ah. Paulis ah. Paulis nama xaar ndax mbay man maa ko jël revanche waaw dafa dugg tv daan mbay té da koo daan daanu ni rek ndax ñom ñaar wa daanu fala fala takalé yoy Paulis ñewal ma jël la daan la am amna solo njaga star la won le jeune rapport supporter nee naa leen xale la mais ndaanaa la tamit moo ngi def liggéey bu am solo ci li nga xamante ne mooy lamb seen émission xaar leen ko ci beneen numéro ak beneen ndaanaan jaa jëf